nag fas yéene naa jëfee nag loolee bàyyeekoo ca conseil constitutionnel te mooy organiser élection yi nag ci nu mu gën a gaawee ci biir Sénégal moom njiiti réew mi nag jamono ji ma ngay waajal ay consultation yoo xam ne rek dana ko amal enquête yëglekaay nag di àddu jëmale ci taxawaay bi nga xam ne rek na mën a koo amee moom président Macky Sall ngir mën a tënku ci dogal googee nga xam ne rek bàyyeekoo na ci juróom-ñaari sages yi la muy sàkku rek fi mu toll nii bokk na ci dialogue politique acteurs yi nag jamono ji mu ngi leen di woo ci ay waxtaan ngir ñu mën a sóobu ci élection présidentielle yi fekk jamono joojee nag acteurs yi nekk ci wàllu société civile bi nag di sàkku ñu amal élection yi ñetti fan wala fukki fan ci weeru mars fekk waa communauté internationale bi itam di woote nag ngir ñu daal di sàmmoon sàmmonteek dogal gi bàyyeekoo ca conseil constitutionnel lu mu ci mënti doon daal dogal gi nga xam ne rek moo tukkee ci juróom-ñaari sages yi ngir neenal dàq gi ñu dàqoon élection présidentielle yi nag Macky Sall dégg na ko bu baax a baax di Quotidien nag ne fa yéene na caa bàyyi xel ba waral nag mu bëgg soobu ci ay waxtaan ca palais présidentiel mën a déggoo ba mën a trouver ab dat bu gaaw boo xam ne rek daañu ci mën a jàpp yooyee jongante bu ñu sukkandikoo ci professeur Babacar Gueye bu société civile bi nag ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne ñetti fan wala fukki fan ci weeru mars bii nag jekk nag ngir ñu daal di ci amal élection présidentielle yi moom président Macky Sall ma ngay def lépp lu mu mën jamono ji nag ngir jëfee dogal gi bàyyeekoo ci conseil constitutionnel mi xam ne nag ne duñu tuxal tey jii duñu tuxal ëllëg lii di élection présidentielle yi faaw rek ñu daal di tënku nag ci li nga xamante ne nii moo di calendrier électoral électorale bi yëglekaay bi di la quotidien nag ne lii moo waral ba jamono ji nag ma amal ay concertation yoo xam ne rek mi ngi koy séq ak acteurs yi nga xam ne rek yëf yi soxal na leen Macky Sall dina lu ñu ko sant ci nu a gaawee bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di la soleil nag ma ngay xam ne ni nag ay waxtaan jamono ji nag dina ko sumb ngir lu jëm ci wàllu organisation élection yi ci date bu gaaw Khalifa Ababacar Sall nag ci jamono joojee ma ngay woo acteur politique yi nag ngir ñu daal di ànd ci dialogue bi ndax jàpp na ne nag waxtaan mënee su la ñàkk ngir mën a amal ay élection jàmm ak dal fii ci réew Sénégal fi mu toll nii nag coow li doonatul tuxalub élection yi nag waaye dat bi nga xam ne rek ca lañ ko war a amal loole mooy ay di jàmbat ci biir yëglekaay bi di libération nag ma ngay àddu jëmale ci date boobee nga xam ne rek ànd naa ki calcul yu bëree bëri l'observateur nag dellu suwaat ci candidat yu bëri yoo xam ne rek ña ngay teg seeni exigence ba noppi nag di amuk njàqare jëm ci date boobee nga xam ne rek moo yem ñaari fan ci weeru avril rawatina nag lu jëm ci jiixi jaaxa gi nga xam ne rek am nañ ko ak weeru koor gi ñu jëm fekk ci biir yéene kaay bi nag Khalifa Ababacar sàll moom di jël revanche am nag ci kaw kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko moomee nag bés bi le jour ma ngay xam ne nag ne report bi mënoon na koo may nag mu daal di duggaat ci langue gi waaye nii ñu ko annulé nag tax na ba fi mu ne nii nag Bassirou Diomaye fay mooy des di doon seenub candidat lu jëm ci bàyyi gi ñuy bàyyi di yi nag loolee mën naa doon ab porox ndollu ci Diomaye Faye ngir mu mën caa jaaree daal di régler nag loolee di temps d'antenne am tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale nag suñu lamb muy dellu siwaat nag ci jongante bi war a dox ci diggante ñagas ak Boy Sadio yéenekaay bi ne lamb ju rëy lañ nar a gis ni ki tey ji ci samedi ji jeexale yëglekaay yi ak le réveil mi woo tey ji nag ak Boubacar Fofana Aïssata Ba ak Alioune Diagne di ay victimes yoo xam ne rek jot nañoo dund lu métti ci nguurug Macky sàll gii di nettaliwaat nag seenub jaar-jaar ak way takk der yi ba nañ leen tegee loxo a sekk nag di xam ne ne nervi yi dañu koo teg loxo ci jamono joo xam ne rek da doon retiré ji xaalis ngir opération bu yaayam waroon a amal bokkul woon sax ci ay manifestation Boubacar Fofana